Boubacar Sadio ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay nuyu Mbemba. Mm, yow euh, responsable politique nga parti PASTEF euh, ca diwaanu Kolda bokk nga itam ci mouvement national des cadres patriotes parti PASTEF Boubacar Sadio li ñuy waxtaanee ci njëlbeen bokk na ci initiative bi nga xam ni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay euh, moom daal sàkku na ci sénégalais yi ngir ñu daal di jël seetal sunu réew def ko seen tey bopp ndax li nga xam ne moo jëm ci avenir dëkk bi itam cet ci la bokk ba tax na di édition bi nga xam ni itam amal nañ ko ci samedi gi ci diwaanu Saint-Louis ci teewaayu ki nga xam ne moo di premier ministre bi Ousmane Sonko initiative bu rafet la continuer. initiative bi weesu na sa rafet na euh, lu ñuy rafetlu la lu fi war a continuer la ba présent bi jeexal bu fi jógee sax loolu continuer fi sénégalais yi def ko seen yëfu bopp que les sénégalais s'approprient de cette initiative là lii nii dafa war a continuer dafa war a wéy même si quartier yi dul sax président bi di ko def une fois le mois. dans une localité ñu koy décentraliser dans les quartiers jeunes yi seen wàllu bopp ñu war a organiser wu ñu changer mentalité les ASC doivent servir à ça ASC yi du mouvement pendant navétane kese la ñu leen war a sentir dans les quartiers on doit sentir les associations de jeunesse les ASC ñu xam ni que ASC du football kese il faut poser des actes de citoyenneté des actes de développement donc lii nii c'est une initiative venue à son heure lu rafet la dina permettre suñu dëkkuwaay yi gën a set euh, suñu environnement gën a set su ñu région yi gën a set réew mi set ku fi ñëw naw Sénégalais yi rafetlu lu fi xew ne Sénégal dëkk bu set la donc li xew Maroc li xew Rwanda lu war a mën a nekk Sénégal la si on sait que Rwanda dañoo jóge si benn guerre civile bu métti réew mi paccaxoo mais tey tey boo demee Rwanda t'as l'impression que tu es dans certains pays européens donc set du question tubaab kese moo moo bëgg lu set ak lu sell set ci wér gu yaram la bokk munoo ni da nga bëgg am wér yaram. que dëkkuwaay fi nga nekk yépp tilim tilim la salté la mbalit la mbalit nag sénégalais bu ne na nekk son propre agent de li l'ICG bul xaar ba waa ICG jóge fële ñëw bale la sa mbedd koñ chaque dimanche wala chaque deux semaines nit ñi dans les quartiers que les gens s'organisent ñu baleel seen bopp seen mbedd yi état ñoo ngi def ay investissement di tabax ay tali mais na nit ñi na nit ñi gën a organiser wu xam ni ñoom ñooy état état du président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye wala le premier ministre Ousmane Sonko population yi la donc ñoom ñoo war a organiser wu continuer lu mel ni chaque dimanche ñu def ay journée de set setal ñu jël koñ ñu ne tel tel jour tel koñ tel jour euh, fi ñuy sottee mbalit wala si benn euh, canalisation ensuite nit ñi bàyyi di sotti ay mbalit si canalisation yi looloo tax ndox mi si tawee du dem loolooy waral inondation yi moom loolooy waral inondation yi donc euh, il faut ñu ni ñi changer comportement mm. pour que réew mi changer il faut que ku ne fi nga toll yow nga changer mentalement et individuellement d' abord boo bëggee réew mi soppeeku mais mënoo ne réew mi dafa da nga bëgg réew mi soppeeku te yow sa wàllu bopp changer téléphone sax bu defee six mois day soxla mise à jour pour mu gën a efficace donc ni ñuy defalee téléphone mise à jour ku ne dafa war a def mise à jour boppam. chaque trois mois chaque six mois. c'est important même bu fekkee. c'est fondamental euh, xam nga Sénégal nu mu bindoo itam génne nit lu jafe la li nga xam ni def nañ ko itam Saint-Louis doon ko war a lawal ci yeneen région yi euh, boole si ñëpp daal bañ ci beddi kenn. na ci ku ne gis boppam xam ne affaire de sénégalais yëpp la affaire de Sénégal la nu ku ne jàppee ni initiative ni moom moo ko jëlal boppam. bañ xaar kenn bañ a xaar état bañ xaar ministre bu ñëw bañ a xaar député bu ñëw ba bañ a xaar un représentant de l' bu ñëw koñ bu ne na nit ñi concerté wu organisé wu chaque dimanche ñu seetal euh, wala chaque weekend ñu seetal seen koñ c' tout loolu dina perdre euh, dina dina tax euh, yooyu dinañ wàññeeku si quartier yi salté dina wàññeeku si quartier yi te surtout ñoo ngi si nawet xam nañ ni que paludisme pali bi ci nawet lay gën a def ay déga surtout région yi nga xamante ni day taw lu bëri lu mel ni ay Casamance Kaolack Tamba foofu na nit ñi gën a organiser wu bañ a dara si état bi vrai initiative bi c' est pas encore euh, euh, décentralisé dans ces régions là mais na ASC yi organiser wu ñu xam ni ñoom ñooy état état du premier ministre du président de la république c' est une affaire na ku ne na changé xam ni li état day accompagner rek mais li ci des citoyen ñoo koy jëlal seen bopp en charge. d' accord. alors donc d'où l'important des ASC là. ñu xam ne euh, ASC du football kese. nawetaan su jeexee se fini nekk si ay bopp koñ di wérante si lu ñor ak lu ñorul c'est pas ça il faut que nit ñi changer faut que nit ñi bàyyi loolu. vingt quatre heures ngi toog di wax ci euh, ci loo xamante ni jëmale réew mi kanam. c'est pas intéressant waaw lii moom day jëmale réew mi kanam cent jour yi nga xam ni def ngeen ko ci bopp réew mi euh, lan ngeen teg ci loxo sénégalais yi ci li nga xam ne moo jëm ci téeméeri fan yi nga xam ni euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay def na ko ci bopp réew mi euh, opposition bi sax nee nañ defu leen dara fii ci réew mi nga mën waxu opposition dama leen tontu te boo déggee ñi fiy wax instant bi ñuy woote seen bopp opposant wala mënuñu sa nekk délégué de quartier bu ñu defoon délégué élection délégué de quartier du ñu gagné koo xam ne mënul gagné élection délégué de quartier nekkul délégué de quartier nekkul chef de village mais kooku ñun nawloo wuñ ko koo xamante ni mënoo jàll l'étape des parrainages musoo am parrainage musoo nekk am benn responsabilité euh, ni au euh, niveau décentralisé mais ñun kooku du ñu nekk fii di tonton tonki lu ñuy def ñun sénégalais yi ñoo ngi siy gis seen bopp moo tax fu ne président fu mu woote rek sénégalais yi dem wuyu ko président bu ne fekk la ci waaw ci téeméeru euh, fan yi ngay wax nii si ñetti weer yi ñu def fii nii ci gouvernement bi Euh, bu bees bi mu ñëwee ba tey hmm. teg nuñ fi jéego yu bëri état bi subventionné na cent vingt milliards béykat yi ren jii lu fi musul xew la gouvernement bi fi nekkoon cent milliards la ko indi woon gouvernement bi yokk ci vingt milliards bu nekk cent vingt milliards pour une campagne agricole réussie ensuite euh, engrais bi ak semence yi ñu jox ko paysans yi nga xam ne ñoom ñoo koy yellool nekkatul benn mafia bi fi nekkoon la nga xamante ni dañ koy jox ñoo xamante ni duñu duñu baykat c'était des responsables politiques de Benno Bokk Yaakaar qui se sont enrichis avec les semences et les engrais pour construire des maisons pour s'acheter des véhicules loolu moo fi amoon gouvernement bi rek nee na lii lépp dañ koy teg ci yoon léppay leer ki nga xam ne moom mooy béykat moom mooy jot ci engrais moom mooy jot ci semence ñi bon impayé ñi fi gouvernement Macky Sall bàyyi woon nga xam ne daf ko yoraloon le le les les producteurs euh, agricoles deux mille vingt et un mille vingt deux deux mille vingt mu nekk bor boo xamante ni près de cinquante milliards gouvernement bi bu mu ñëwee da koo fay da koo fay en un mois d' ailleurs xaaruñu mois en un mois donc loolu ay jéego yu am solo la yi fi président de la république et son gouvernement teg mm-hmm. ensuite gis nga euh, njëg yi dañ ko wàññi. 53 milliards. la état dugal pour mun a subventionner. li ngeen wàññi tuuti na. dara de tuutiwul cinquante 53 milliards. 53 milliards loolu lu mën a def ak a bëri mais loolu première étape kese la néew ñu wàññi bi fi lay yem te wàññi boo koy def da ngay concerté wu avec euh, ñi nga xamante ni yooyu ñoo ngi si euh, ci commerce bi nee nañ que pour le moment lii la ñu wàññi mais dinañ gën a concerté wu ak les euh, les acteurs du secteur pour gën a wàññi njëg yi te ñoo ngi ñoo ngi koy appliqué dans toutes les régions du Sénégal. Mm. ñoo ngi koy appliqué. les prix sont appliqués. Mm. ensuite président pour éviter li fi xewoon comme euh, jamono Macky Sall li xewoon dégg nga leer nga yeewu yow en tant que président rek mel ni entrepreneur wala benn chef d' entreprise jox nga ko 1000 hectares wala trois 300 hectares ci dëkk bo xamante ni ña fa yeewoo ñoom fa yeewoo depuis plus de euh, plus de cent ans di fa béy seen maam yi doon béy foofu nga jékki-jékki nga ni seen suuf soof moomatuñ ko. président dafa demander à son gouvernement pour ñu initier benn projet de loi sur la réforme foncière pour permettre baykat yi ñu am ay titres fonciers fa ñuy bay ñu moomal ko seen bopp. gis nañ itam li jëm ci conclusion assise li jëm ci wàllum justice daanaka euh, document yëpp léegi yegg na ci loxoy président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye rapport bi ni mel euh, lu ci bëri ay recommandation mi ngi ca ngir réformer système judiciaire bi waaye laaj bi samp mooy président bi euh, ñenn ñi nee nañ nii wii la war def nii non ci li nga xam ne moo jëm ci génnam conseil supérieur de la magistrature ndaxam itam warul woon sàmmonteeg waxu campagne rek mu daal di génn mu jeex. Euh, naa la xamal leen président de la république nitu kàddu la nit ku tey la nit ku dal la euh, ni mu tontoo nii waxul nii wuy nii non déet moom du genre nit boobu de nii wuy nii non déedéet waxul loolu la mu wax ni dafa leer nee damay déglu beneen partie bi ci des mooy ban mooy magistrat yi que ñoom ñooy les principaux concernés man engagement laa jëloon. mais léegi nag magistrats yi ñenn si ñoom ñu bëri yëkkati nañ seen baat ne ah président bu ñu señoon di nga des si biir conseil supérieur de la magistrature ndax lii ak lii ak lii ak lii léegi nag président dafa ni lu leer nañ damay déglu magistrat yi bu dee liñ ma wax ci argument indil ma ci ay argument doy na ma ma ma euh, dinaa jël sama décision librement sans pression bu dee dinaa des wala du ma des bu dee nag luñ ko wax ci argument doyu ko il va décider aussi librement de rester euh, ou bien de quitter mais waxul ni dina fa des wala nii wuy nii non déet président du nitu kaddu euh, genre kaddu yooyu nii wuy nii non nit ku dal la nit ku ànd ak tekk tey la donc xam na fu mu jëm xam na fi mu jóge il n'est pas pressé donc xam na bu baax li muy def kenn du ko teg pression c'est pas quelqu'un bi ñuy teg pression mhm. ah déet neewul du génn de encore euh, rapport bi kañ la génn donc il n'est pas trop tard ba ñuy nee président dafa ne way du génn wala président euh, nee na léegi fa lay des dafa ne day déglu l'autre partie ñi nga xam ne les principaux concernés mooy magistrat ñu bëri si ñoom yëkkati nañ seen kaddu ne ñoom bu ñu sañoon président du joxe conseil supérieur de la magistrature xanaa kay nit boo koy defal mbir di ko ne dama la bëgg tabaxal kër bii fii nii laa ko bëgg a tabaxee mu ne la non man defal ma benn néeg ak salon kese doy na ma ah, xanaa kay. yow bo amul yéene def étage mu ne la man defal ma benn ne ak salon mais xanaa nga yéen ci moom li mu la wax defal ma ko léegi nag président mooy apprécier man sama xalaat lay joxe li ci des président moo koy apprécier bu mu bu bu demee ba ba ba toog ak magistrat yi waxtaan ak ñoom bu dee luñ ko wax doy na ko mais mu des tout façon est que lenn leer na président du immiscé wu dans la gestion euh, de, de, des affaires pendantes devant la justice parce que engagement yi leer la yi mu jëloon li mu waxoon la il tenait te moom xam na luy prison c'est sur la base d'une forfaiture lañ ko téye si ay affaires yu ñàkk fayda lañ ko bëgg a lañ ko jàppee woon jaay ko doole fekk ko bërëb fu mu doon liggéeyee impôt domaine fekk muy liggéey ba vingt heures te fekk dafa waroon en plus jour boobu buñ koy jàpp ce jour là dañ ko dem bëgg a dajji buntu bi am ñu bañ ñu xaar ba mu génn fekk ko ci bunt bi koo xam ne ndekkiwul añu reerul dañu ko rap dem dugal kas c'est ce qu'ils ont fait sur la base d'un simple post Facebook il a donné son point de vue te da doon dénoncer ni justice bi di doxe lool la doon dénonce donc yow ki doon ñaawal ni justice doon doxee hmm. yow kooku dina ñëw di gën a ñaawal euh, doxalin justice déet pour mu gën a rafet moom moo tax jéego yi mu njëkk a teg mooy assise de la justice bu acteur yëpp yëpp ku ne ñoo jox xalaatam donc euh, man gëm naa li gën ci sénégalais yi rek lay. d' li gën ci sénégalais yi rek. sénégalais yi kese lay def. d' accord léegi euh, Boubacar euh, Sadio euh, tey nag xam nga coow li yëpp mooy président wala premier ministre war a def def déclaration de politique générale am ci assemblée nationale ñenn ñi sax nee nañ parewul moo tax muy def bruit bii nii yëpp. est-ce que kay lu gën a yomb euh, Boubacar Sadio mooy premier ministre kay dem assemblée nationale def déclaration de politique générale n'est-ce pas. kuy kuy pare premier ministre Ousmane Sonko moo leen njëkk a pare. laataa ba laataa wax pare moom pare na pare na pare na ca fajar di toog di xaar gaay te bind na bataaxal mu leeral lépp mu ne leen boo leen bëggee ma ñëw assemblée nationale def déclaration de politique général ngir yàlla xanaa kay règlement intérieur assemblée nationale. ngeen def ko mise à euh, mise li nga xam ne da ngeen ko génne woon li nga xam ne man daf ma concerné man premier ministre mais ngeen delloo ko ci règlement intérieur bii nii permettre premier ministre mu ñëpp dem kanam assemblée nationale ci député yi dina moo ngi def déclaration de politique générale bu dee am na ku pare euh, premier ministre Ousmane Sonko moom pare na ca fajar toog di leen xaar di leen déglu léegi nag ñoom ni ko waa ji di waxe ñoom ñoo nekk di layam layami dugg ci presse bi dem ay conférence de presse pour manipuler population yi alors que li fi xew ñoom ñoo ko indi blocage bi am fii ñoom ñoo ko. Boubacar euh, Sadio. léegi assemblée nationale dañ ko war a tas wala dañ ko war a bàyyi mu wëy euh, lu ciy sa xalaat yow. man sama xalaat et je l'assume pleinement euh, bu dee lii blocage bi moo nar a continuer si lii la ñu député Benno Bokk Yaakaar na a yóbbu nañu tas assemblée nationale. maanaam c'est une position que j'assume et je l'ai dit partout instance parti bi fu ma bokk dama koy wax. Boubacar ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ni nga nangoo tontu suñuy laaj. Boubacar bokk nga ci euh, parti PASTEF responsable nga ci sax ca diwaanu euh, Kolda bokk nga itam ci euh, MONCAP monkap moom mooy mu mouvement cadre patriotique yi nga xam ni yéen a tënku ci biir parti PASTEF ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. di leen sant di leen gërëm.